asalaamaaleykum waa Yoff asalaamaaleykum waa Tànk asalaamaaleykum waa Sénégal gépp nu ngeen nuyu ñëpp di baalu àq ñëpp di xam le ne waxtaan wi tey noo ko oote si turu Tànk ak Yoff gépp lii tax nu oote ka tey moom la ma leen bëgg a léegi nu commencé waxtaan ba ma waxee ba àggal nuy mbokk yi si des ka nekk jël ci kàddu wax ji dëgg du gudda comme ni nu ko waxee woon ko waxee waat li nu wax lépp moo la feebar bi si réew mi ak nu doom ji kayoor ñaar yi rek la ma wax bi si réew doom ji kayoor doomi moo ko yor nu war ko see mën a jàppale waxaat nit ñi waxaat àddina gépp xam ne feebar bii kase wax nu noo si war a jiitu nun noo lay bokkaam bon dëkk Abdoulaye Diouf Sarr mii yor feebar bi moom la noo jàppale in la wax ne nekk ñëpp a jàppale sonn na fa sonn yem métti na faw métti yem lii nu tax a génn la moo la li nu génn woon bi passé rek noonu amuñu la dul buloo benn bëñ dala weex moom moo yor ministère de la santé coow li bari ka nekk la wax bon dëgg ñi lay bokkaam war na nu mën a génn wax loolu moo la waxtaanu tey bi te li nu see wax yëpp si jàmm rek la nu ko teg kase am la la naqari mbir u jéggal nu rek waaye dañu am laa xam ne dañu ko war a wax nin ko war a waxee moo la nu mbokka nu doom moo yor ministère de la sant feebar bi métti lool ñu war see yee ñëpp war a wax ak bon ndëkk bu ñu ootee fii <coughs> li ñu see wax moo la ñii ka taxawul sonal ka lool ñii ka sonal nan nu dimbali rek nun loolu loolu nu am im yaakaar ka gannaaw yàlla ak yonente bi mu la nu doom nu bëgg a ñu tufli ka lanu si man rek dinañu ko def nun man rek dinañu ko def feebar bi ñaan nanu saraxe nanu tuuru nanu lay ko def nanu ko illa xaar yàlla bon ndëkk lii ba amee nu oote fii tey ñii xamee na ñooma gën a xam feebar bi dinañ ci waxtaan ñii xamee ne tamit am nañu ci lu wax dinañu ci wax ñu waxtaane ka ba réew mépp dégg ñu ñu xam ne nun taxaw nañu ci feebar bi comme ni ki ñëpp a taxawee moom dara lu doon dëkk ci dëkk bi xam ne sonn na lool bon du jaadu du rafet nu toog ci ñuy kër ne patta le conseil des notables bu Yoff gépp taxaw nañu pour wax ci wax ji jàjj nit ñi xamal leen ne feebar bi dëkk la mu ngay rey comme mu ngay rey dëkk ñun dañu war a wax ba nu waxee ba pare leneen li si toppaat xam ne politique la ñun loogu nu yoon nekku sax ñii la politique toppali ka rek di kay ngaññi ngaññee booga ba léegi ndigee dana ab candidat la Ndakaaru rek ka nekk jox ñun waxagul si loolu loolu tollooguñu sax li noo wax daal moo la feebar bii Abdoulaye Diouf Sarr ñu doomam ñu war kaa mën a jàppale ay bokkam génn xam ne li moo na ay bokkam mën nañoo na la ni de ñu jàppale ka si bon ndëg damaa yëkki kàddu gi jox ko Alaaji Baay Daam moom it mu wax si waxi feebar bi wax si waxi doomi dëkk bi bu ñu si jógee ñeneen ñi war a jël kàddu yépp jaraaf Yuusoo ngi fi jaraaf aala ngi fi jóge wakaam ndey ji réew euh, da dawul ndooye ngi fi jóge wakaam ndax fii dafa toll faa xam ne fii léegi laa si xoos ñuy jóge wakaam laa si xoos rek mu la waa yoof ñëpp a ka yëgandoo yëg nañu ne métit bi dal nañu waa yoof na nañu waa ngor sonn nañu waa wakaam sonn nañu bon donc ñoom sëñ nañoo génn ñëw jàppale seen doom jàppale nu si feebar bi parce que ba nu toogee ba ka nekk di songa nuy bokk dañoo ñëw sot duñu laaj sax la xaw dañoo xeex ak ñoom ba pare doon noo wax la leen jote nuy bokk yi ñëw duñu laaj sax la xaw dañ ba pare doon wax door a wax seen xalaat ci li ñu wax jaraaf Yuusu ngi toog jaraaf aala toog ñu ànd ak day ji réew dawul ndóoy bon de jaraaf du mbenga mu ngi fi boo man damay yëkki kàddu gi rek jox ko laaj bay daam ba xamee ne war nañoo mën a tëj rek man ma wax si li ma see war a wax ndax dafa am ci yéen ñii journaliste yi ay journaliste alimentaire yéen a ngi siin ñu ngi fii di bëgg a rey loolu ba ñu waxee ba pare man dina ma si wax ay journaliste alimentaire jàpp Ablaye Diouf Sarr ngañ ñi ngañ ñi ngañ ñi ngañ ñi daxa doy ne ban benn pare si lii man dina ma si wax bon mu ngay jox kàddu gi Alaaji Baye Daam Saltigué faa ak yi toog donc mu ngay jox kàddu gi Alaaji Baye Daam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم gannaaw bu ñu ubbatoo ci turu borom bi amee yërmande àddina ak àllaaxira di ñaan yàlla ci mbaaxam kantanam mu musal ñu ci pexe seytaane mi jam xol yi di ko jax-jaxal di nuyu kilifa yi nga xam ne ñoo teew ci jataay bi di leen jox seen gi yëguwaay di leen tatagal di leen dalal jàmm ci Yoff ndax ket barab bi ñu tàbbi ci seen kër la Yoff moo jur Ngor moo jur Wakaam moo jur Ndakaaru bon su jamono doxee ba ci wàllu coutume bi ci wàllu coutume bi wàllu politique bi wàllu réew mi am lu ci yëngu

di ziyaar imaamu ratib bi ak fu ñu mënti séede ci biir dëkk bi ak képp ku yor ndombu tànk di ci jiital boroom dëkk bi jaraaf seen liggéey ndey ji réew El Hadj Babacar Mbeñ bi nga xam ne mooy président du conseil des notables li nuy wax ki seen kàddu lañ ko waxee ki seen xalaat lañ ko waxee ndax lu ñu diisoo la ba ñu joxuñ ci ndigal ñu am sañ di taxaw ak nag ci kanamu presse bi biral suñuy kàddu muy kàddu Yoff ñu wax ni ñu ngi sant yàlla ci Abdoulaye Diouf Sarr ndax doom la joo xam ne ji gàccee luñu la ñu doon xaar ci moom ci yenn bii yàlla teg ci moom mu jaar ci président de la république mel ni ci bi pandémie tàmbalee ba léegi lépp lu mu ci man guddi ak bëccëg mu ngi ci ku ne gis ne première vague bi fi mu jaar ba yàlla def ci li muy def ñu gis ko deuxième vague bi ñëw ñu daaneel ko ba am ci félicitation ci le plan international ñu wax Sénégal lan la ci pesé ak lan la ci def ba feebar mën a dell ginnaaw waaye nag yàlla dafa waxoon ne du dindi ab nattu ci aw xeet fekk xeet yu jóguñu pour dindi ko seen bopp te pandémie bi gëm ngi ne loxo borom bi génnu ci loxo yàlla moo ngi ci biir ndax bu yónnee ay yonent ci ay xeet jox leen ay mission yërmande rek moo tax rahmatan lil alamin ba mu delloo ci yonent yàlla aadama ba ci Seydina Isa mi nga xam ne moo am ndey te amul bàyyi diggante ak Seydina Mohamed 600 ans moo fi jaar juróom-benn xarnu bi Seydina Mohamed ñëwee mu ne yonente bi yërmande la mu biral la ko yàlla waxoon wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin dama la yónni ngay yërmandeeg ñeel mbindeef yi bon buur bi ñu bind boyal ñu ñeewante bi mu am ci man moo tax mu ni ay ndaw pour dab ñu delloo si ñu ndax ba mu waxee ne inna jaal naa xalifatan fil ard doomu yi ak fu ñu mën a féete ci kaw suuf ñooy suma kutaay ci kaw suuf bon bu sañoon aw yu rek moo fi dox moo fi am bon su jamono doxee ba jamono bi yàqu nit ñi bëgg a dunde ni leen neex jëfe ni leen neex waxe ni leen neex fàtte seen boroom yàlla dinaa indi feebar yoo xam ni seeni maam yi xamuñu ko ñu leen jiitu xamuñu ko mu mel ni pandémie nag jiitu fi tey 1914 ku ne xamoon na ne peste amoon na fii ci Yoff la jële woon dëkk bi fa ci boori géej indi ko ci kaw fii pandémie rek la woon boobu nañu li nga xam ne moo distanciation yi tar toxal nit ñi pour que rek feebar yu mën a dellu gannaaw bon Yoff mosu ngi dellu ginnaaw ak ñi ko wër ci xeex ci feebar yu mel nii bon su jamono yi nag pandémie bi ñëw mu tombé ak ay Laye Diouf Sarr mu nekk ministre la santé ci réewum Sénégal président la dénk ko boobu sas mu ciy dox guddi ak bëccëg ak ñi ci àndaaleen wàllu santé bi di leen ñaanal yàlla yàlla fay leen seen taxawaay ci njaboot gi waaye moom guddi ak bëccëg mu ngi ci lekkatul naanatul talul dara ngir am ndam rek ci liñ ko sas mu mel ni nag dafa am ñu bokk ak ñoom kaam bokk ak ñoom APR guddi ak bëccëg ñu ngi fexe lu ko man suuxal ci li muy liggéey loolu la ñuy wax ne ñun duñu ko seetaan neen meenu ci di xool ay nit ñu def lu jaaduwul ndax feebar bi waruñ ko politiser dañ ko war a xam ne pandémie la boo xam ne bii tey kenn talatul dara liggéey yi freiné na liggéey yi yàqu na dëkk bi tas na société yaa ngi tas bon loolu koo gis ci am réew xam ne foofu mu jëm ñun baaxul bon ko ci am yeneen xalaat di fay ay nit ñu dénigré ministre bi di fay ay nit ñu wax lu ñaaw ci moom di dem ci plateau télévision yi di wax loo xam ne wóor na li ngeen wax amul dafay jaadu ñi ñi nga xamante ne ñoo dëkk ak moom xam ko dal di ko dénoncé wax ne ànduñu ci mu yëg ne xeex bi weetu ci ndax ay bokkam ñu ngi ci ginnaawam conseil des notables ak képp koo xam ne kilifa ngi ci yoof yor ak ndomba ak foo ko mën a yore diggante tànk ngor wakaam yoof ak ndakaaru yaa ngi ànd ci ginnaawam di ko jàppale ci yan bi pour que mu mën a réussir ak mission bi ñu ko jox mission bi nag képp kenn seen ñun dafa war a yëg ne ci moom lay sotee mooy mu xeex ko fexe ba li nga xamante ne wàllu docteur yi loolu la ñu joxe ay recommandation ki raxas suñuy loxo fexe ba cet gi nga xam ne moom la ñuy tàlloo woon guddi ak bëccëg ci wàllu diine ñu yokkaat ko fexe ba lépp lu ñuy tere buñ ci kenn xelmati lépp loo xam ne dañ ko digle buñ ci kenn jiitu képp kenn yi bu yëgee ne ci man lay sottee ci man lay jeexee fexe ba dina fi jóg te benn coono du ci am bu bëgg nag wax population bi ne nañu tal leneen lu dul politique jamono bi ñu ne Abdoulaye Diouf Sarr maire Yoff la ministre de la santé la et de action sociale heure bu toogee wax ne dafa bëgg a Ndakaaru boobaa daal Ndakaar dinañ seet seen doom bi gën ci ñoom ñu tànn ko ku ne am na sañ-sañ nag laaj waaye ñun su boobaa danañ xam kan moo gën ci ñun ak kan moo gën ci dëkk bi su boobaa ñu xam nan la ñuy def ci moom waaye maa ngi leen xam ne bu leen juum de na ngeen settantal bu baax li ngeen di def xool lu baax li ngeen di def waaye ne yëg ne wéetul ci feebar bi ndax ay bokkam la ko ci kaw ba ci suuf ñu ngi ci gannaawam di ko jàppale guddi ak bëccëg mu fexe nag lii Abdoulaye léegi Ousmane si la doon jënj dafa am ñoo xam ne dañuy dund ci ab gerte di dund ci ab neexal waaye ni yëg ni fii dëkkuñu fii képp koo xam ne yaa ngi wax loo xam ne lu wóor la ci nit boo léegi di nga pencoo ak borom bi mu laaj la nga doon wax fa nga ko teg te lépp loo ki def ak di ko fay si diggante ak kan doon waxal te amul bon nañuy wax lu baax nañuy jëf lu baax nañu bëggante nañu soppante nañu dimbalante yàlla tax dimbal nag dafa bari ay façon nit ki mën nga ko dimbali ci lu jox xaalis mën nga ko dimbali ci xalaat mën nga bind ki taxawaay mën nga dem ba lépp lu mu nekk ci aw yiw nga nekk ca waaye lépp lu ak doy di wala ci kenn xelmati ñu bëgg nag dëkk bi góor ak jigéen mag ak ndaw fooy mën a féete mu yëg ne xeex bi ab xeexam la mu topp ci ginnaaw ci yàlla jox mi Abdoulaye Diouf Sarr ñu jàppale ko ci yan bi ba lépp lu mu sumb ci dëkk bii ñu mën ko mottali inchaa allahu taala dinañ ci boole ay ñaan ndax gëm nañu ne feebar bi du yem rek ci wàllu médical du yem rek ci wàllu scientifique mais dinañ ci boole lépp loo xam ne ay xar baax la yoo xam ne gis nañ ne buñ ko defee maa ngi defoon ko démb mu mën fee jëlee feebar bi incha allah danañ ko def ba feebar bi jóge fi ànd ci nag ak notabilité yoofu yëpp ak yu caser yëpp ak yu tànk yëpp pour que lii nga xamante ne moo ko ci dëkk bi ñu mën ci éradiquer ñëpp mën a dellu ci jàmm mën a liggéey ci jàmm lii laa amoon ci ay kaddu yoo xam ne doon naa ko sàkk di gis sama bopp di gis soññoo sama bopp di gis soññoo réew mi yëpp ñaan yàlla nag lii nga xam ne moo fi am ñaan na ko yàlla. sali Seydina Mohamed laa hawla wala quwwata illa billah laa hawla wala quwwata illa billah laa hawla yi ñu ngi nuyu ñëpp ku ci ne sa tur ak sa ñu ngi nuyu kii nga xame ne suñu borom moom la def muy xalifatul muslimin muy Baye Abdoulaye Thiaw Laye nekk fii ci yow gannaaw ba ko nuyoo ñu ciy teg képp ku nga xam ne ci Sénégal ñun seen seen i mbokk seen i dëkkandoo seen i àndandoo ñooy waxtaan waxtaan mii nga xam ne moom suqee ko fii ci Yoff te tànk bokk ko muy Wakaam Ngor Yoff ba Ndakaaru ñu bokk ko képp ku nga xam bokk nga ci xeetu lébu bokk ko képp ku nga xam ne suñu dëkkandoo nga même boo bokkul ci xeetu lébu bokk ko ak citoyen Sénégal nga gannaaw ba ñu sante yàlla jiite ci président de la république Macky parce que lu njaag moom moo waral suñu coow lii tey di njaag Ah. parce que moom moo jël suñu doom depuis 2014 teg ko ci boorom dayloo ko moolu ko di ko sante te gis ne li mu koy sante mu ngi ci am ay résultat defe naa ne képp kuy doomu aadama pandémie bi nga xam ne moo lëmbee adduna ba mu commencé ci Chine xalaatu woon na dina ñëw fii ba ëgg fii hmm. te lépp luy grande puissance yi nga xam ne ñoo nekk ci monde bi subir nañ ci pandémie bi lu nga xam sax ñun ñii en tant que pays sous-développé subir ñu ko. ñu gis ne pandémie bi bi mu commencé ba léegi lépp lu nga xam ne wareef la ci réew mi président de la république ànd na ak ministre de la santé et de l'action sociale ak gouvernement nekk ci. te ñun ñu bokk ak ñoom réew mi dénk leen réew mu jël suñu njaboot tëj ci booro ñu gis lii muy daj guddi ak bëccëg parce que dañu ànd ak moom fu ne di xeex pandémie bi ànd nañu ak moom fépp foo yaakaar ñun waa tànk di xeex pandémie bi ak moom defe naa ne lii am tey jii ci réew mi bu fekkoon ne kii nga xam ne mooy ministre de la santé dafa négatif defe naa ne président de la république kenn du ko ko wax parce que bu dee renseignement moo ko ëpp ñëpp bu dee ku koy xamal moo ko ëpp ñëpp kon moom mi nga teg ci booram boobu ba léegi gis li muy daj ak ñi mu àndal ak ay ministère am ak ay collaborateur am defe naa ne xam na li muy daj ñun nag leen moo ñu tax a jóg ñun waa tànk di waa Wakaam Ngor Yoff ba Ndakaaru xeetu lu fii ba jëndee du ñu nangu kenn ku ñu détruire du ñu nangu kenn ku ñu wàññi lii ñu liggéey ci réew mi xam nañ ko lii ñuy taxaw ci réew mi xam nañ ko ku nekk ngi xëcc di wax ñii di wax yëpp seen wax jubluñu ko ci dara du dul yàq même les grandes puissances boo demee politique arrêté nañ ko fa teg ko fële lu ñuy wax lu defar seen dëkk lu arrêté pandémie bi Sénégal rek boo nekk dëkk boo xam ne actuellement politique bi ñu ngi jël di wax ci pandémie bi au lieu que ñu wax lu faj ñi <clears throat> te yooyu dafa war a jeex Ablaye nag ku laa dal ci kawam ci suñu kaw ngay jëkk a dal suñu doom la déggal nañu lu ko sante bu def lu ñu ko tere bu bàyyi nañu xam ne lépp lu nga xam ne président sant na ko mu nekk ci ñun dinañ ko ci gunge te ku laa dal ci kawam di nga dal suñu kaw ñii nga xam ne les politiciens yi nga xam ne ñu nga jóg seen kàddu di ci wax duñu ko yóbbu fen te duñu mën dara ci moom te ku ci moytuwul nag dinañ wax leneen ci yow nañu ko bàyyi mu def liggéey bi moom la ko président de la république sant mbokkam yaa ngi moom réew maa ngi ànd moom ñu ñaan yàlla lii nga xam ne mooy balaa bi dugg fii suñu borom dindi ko fi ci jàmm ñu ngi nuyu Sénégal bi yëpp di sant ñëpp di xamal ne Sénégal benn bopp la bu ko kenn xaar ñaan nañu ñaan yàlla lii fi nekk jóge fi ñu dellu ci activité yëpp maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam man naa jaraaf Alioune Guèye. Alioune Guèye. Jibril waaw. bu maa ànd ak sama grand sama mag moom euh, jaraaf Youssou. moom sama papa a ko sama papa a ko sama papa moo patron ah, ok. <coughs> bon <coughs> asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di ziar yàlla dolli jàmm nag buñ koy wax fii ci Sénégal mooy ñu fexe ba corona bi départ dem yoonam dina dem bu soobee yàlla yàlla lay neex mu jóge fi bu naqaree bu neexee yàlla yàlla ne du fi jóg il faut ñu dund moom ba àpp bi mat nanu gëm yàlla Sénégal ba ngeen di baalaa xa def lu ñaaw si réew mi yàlla nga ne këj bu leen dëgg tey nag mu yàlla ayee nañ ko may mu doxal doxalam mais am nañu droit nag ne allahuma dimbali nu si corona bi pour mu jóge fii dem ba biir géej nga seral na ko fooga ba nu dajee teg moom nañ nu dajee moom fa sa passé àllaaxira vers 16 heures am nañ si droit nañ ko def dama ne woon sax danay ñëw toog bàyyi gars yi ñu bàcc mu mais j'ai vu que am na lu nga xamante ne boo waxul dafay leneen man jaraaf ku nekk xam ne ne ku ma def ma fayu bu ma fayoo dama ñëwaat fi toog parce que Ablaye Diouf Sarr Ablaye Diouf Sarram lébu la laa laa fi nekkoon lii nu defoon ñaaka defoon xam ne ne war nu kaa defe nooga dan ko tudde woon tànka te du tànka ma ñëw indi problème teg si dëgg way mais mag ñi day wax ne adduna kenn du koy lu doon si dox Ablaye Diouf Sarr bi jàng jotee jàng na bi moo liggéey liggéeyal boppam dem na liggéeyal boppam te Sénégal xamuñu ko bii yàlla dogalee pour que mu nekk ministre nekk na ministre sonn si yéegul wàccuwul waaye dafa topp si ginnaaw président bi nag yàlla nag bu namee namee euh, euh, ñu naan président Macky Sall nama ñu naan ministre Abdoulaye Diouf Sarr benn sénégalais manu si dara benn togolais manu si dara nan waxante dëgg rek politique moo yàgg Sénégal te nañ koy defee bokkul ak niñ ko war a def xuloonu xeexunu dañu toog pour waxante dëgg ndax Sénégal waruñoo xeex sunu biir mais bodd konte bi am ci xeet yi suñ ko moytuwulee dinañu boyal réew mi te jaru ko Ablaye Diouf Sarr fii la dëkk ci Dakar Ndakaaru ku nekk na xam ne mooy capitalu Sénégal damay wax toujours ku sañoon dëkk ba nga faxa ko doon fa mu doon capitalu Sénégal nun ne yàlla jiital nu ngi jiitu taxaw jàppa sunu njàmbur war a jël lépp teg ko si yoon Ablaye bu nekkoon ne ñu ñoo ko jëkk fekki lu nekk xam ne ne lébu na le lébu n'a pas mais ni ñu gisee affaire bi man sax damay jàpp ne dañu nekkoon di gaj di ŋàñña président de la république te loolu ëpp na si gémmañ ak nit yàlla moo fat ba pandémie ni pandémie bi ñëw ñu ne noo nañu maintenir maintien la ñuy def dafa mel ne équipe bu football bu nga xamante ne dem na ba ndeysaan ñu ngi naan équipe yaa ngi wàcc ñee ngi def lii ñu ne non nañ maintenir suñu rythme comme ça dixième gi ñu jël ñu jël ko ba ñu wàcc euh, dem dem dem si euh, weneen division politicien politicien Sénégal bu fekkoon ne dañ bàyyi seen xel si waxu nit ñi dañuy dem a dem ba xam ne ay yàqkat lañ parce que président Abdoulaye Wade nii lañ ko defoon dafa faru rek gars yi takk seeni i godaas ab Abdoulaye Wade nii Abdoulaye Wade nii ba Abdoulaye Wade nii girib bii Abdoulaye ñu président Macky Sall ñoom ñëpp ñu àndandoo mais xol bu bon melentaan xam loolu du ko mu jot ak matt noonu danu bon te ko ba nu ne nun Sénégal réew tera du réew ma baax xam nga parce que kenn yéenewul sa morom jàmm Abdoulaye Diouf Sarr am na droit nekk ministre yi ak ci euh, président Macky su footee nañ wax rek parce que réew mi kat attention ñun lébu yi du ñun ñoo transformé réew mi def ko réewam xeeta xeet góolu na ñëpp xajal na ñëpp yaatal na ñëpp ba bàyyi laay ba mu ëgsee def ne yëkkati leen sàkka yi ngeen puusal ko yaatal gan yaa ngi ñëw boo ñëwee wakaam mag wakaam dañ doon wax ne ku dugg wakaam di gan yal na la yàlla may teraanga fàttee ñaanal gars yi sama classe ah. ñii de ñeex a liggéey kenn ku nekk boo waxee sa yaay mu ne ah seeni maama ko ñaan de danu ñaanal gars yi da ñëw gan ñi fàtte leen yéen loolu bu nekkee noonu bu nekkee noonu dama deme noonu waaye man si sama xalaat Sénégal war nañ mën a ànd bi nu amee indépendance ak léegi way nañ fi way yu bari bari yoo xamante ne way si nekk dafay ay dafay représenté ab joow bu ñu toogee ba deux mille euh, euh, deux mille vingt et lii xew xew mooy que nañu ko doggante nañu xeex nañu xuloo loolu du yoon euh, Jaraaf Al wax na ko léegi Baye Daam wax na lu ni mel lii xew mooy réew mi buñ ko yàq boo dokonte baaxul de yàqam réew gis ngeen Côte d'Ivoire looloo fa tey jii ñu nga nële di tabax te mënuñoo àggal buñ ko yóbbu Sénégal kuy contre président Macky Sall ba ba ba ba ba ginne ñëw ne da lay toxal yóbbu la àllaaxira da ngay war a bàyyi président Macky Sall en paix mu liggéey en paix ay ministre am liggéey en paix ñu génn si génn si pandémie mi ak jàmm mais Sénégal ay jógal ma toog rek la xam pourquoi jógal ma toog lu tax ay ay candidat yi dul gidu ku nekk mel ni jargañ xam ñu dara service wu ñu dem di di ñees ñii si te lii ngay wax kii dañ ko jox ay at mu for a toog c'est pas normal c'est pas normal ministre bu bokk si président rek nañ ko guerre seetu leen li ma leen wax sénégalais yi comprendre ngeen bu baax fii dëkk bi Sénégal bu jëkkoon du golox golo léegi golox golo la waa gi day yéeg nga yéeg mu wàcc nga wàcc bu lekkee madda nga lekk madda bu lekkee tol nga lekk tol ay nit lañ dofuñu nga ñëw nag léegi ñu ne Abdoulaye Diouf Sarr ministre de la république man jaraaf Youssou Ndoye bu ma si bonee xool fu ma jëm pandémie bi bu fekkoonte ne ñi mën a xool lay jël mais ñëpp lay gën di raati raati rek Ablaye di bëgg a boppam ci liggéey dafa liggéey ah. ba ba ba président Macky Sall ñëwee ba léegi def ko def directeur jóge fa mu def ko ministre te jii ñu tollu si tolluñu si évaluation xam nga si ñu toll fexe ba pandémie bii génn match yi dugal nag lu nga xamante ne mag ñi moom leen daan wax di ko def. pandémie bi bon su fi jox mais bu ñëwee mag ñi ñooy seet ba trouver luñ koy réglé nu coutume bi ñu ngi seet fan lañuy jaar ak pandémie bi suñu si amee bunta état bi si boppam aussi ñu déglu parce que nit ku dangay jàng école je suis wala nii wala naa defe ni alors yow yaa ëpp doole ñi fi toog manul ne fii coutume nañ wax coutume dafa am administration jiite ko euh, euh, diine nekk fi ay diine ngoon institution lañ comme ñoom ñëpp tey jii dañu gën a pour wax lii war a wax muy ab dëgg ak dëgg lu tax Abdoulaye Diouf Sarr parce que panelu Abdoulaye Diouf Sarr dafa am na dëkk yoo xamante ne boo demee sax xamul bu fa tàkkee mën laa wax penkum fànn te panelu baa nga yéen bu baax Sénégal yi du fi dox xam ngeen Euh, corona bi fu mu déparé du fukki dëgg wax fa ko naka fa panneau bi déparé fa ngeen ragal wala ña ngeen ragal ñëw duñu wax nun nii toog si booru tefes gi rek la lekk duy dem ba seet aw jën rek la noo lekk talal ñu sax ay waxi bandi mag ya kenn xam nañu réglé Sénégal buñ ko bëggulee yàq nañ ko teg si yoon li fi xaw ku nekk gis na ko tey jii président de la république ku koy xeex demal xeexi ko sa àll ba moom mooy président tey mooy président suba fii ñetti at ñu doog a seetaan loolu yow mën a xaar nga dund ñeent fukki atal teg juróom fukki atal teg ñu xëy ñu ne nañu xaar trois ans ku nekk na du ko xaar ma ne euh, journaliste yi ñu baax ngeen mais ñu baax ngeen Ousmane Sylla dafa waxee noonu rek parce que hmm. xamul ne gars yi leen di wax ngeen xel waaw te normal ñii waxkat waxkat yi bu ñu waxee ngeen génne ko ñun tam bu tontoon nañu génne li ñu tontu ku wàññi yaa yàqa problème mooy réew mi yomb naa waxee dëgg parce que ay nit lañu su fekkente ne Abdoulaye Diouf Sarr mënul woon nekk ministre du ko doon président de la république tànnu fi waa cm yi de déedéet ñi am baccalauréat la tànn ak ñoo man gi man Géra Poussou man ñi ma ñaay taxaw ci réew mi naan damay nekk ministre. boobu nekkoon na ministre ñaari fan nag lépp gi am a dof parce ma sëf antalu moo tax ma toog benn place Ablaye mii ko nag boo ko ba léegi gis ngeen attention bu leen def ne réew mi dañuy dañuy nelaw ñu ngi seet fu ñuy jaar ak pandémie bi ba génn ko réew sant yàlla. nu koy avancé may leen ñu tuuti bu soobee yàlla yàlla dinañu suturaal dimbali nu ngir jëmmi Rasulullaay ngir jëmmi bàyyi Laay ngir jëmmi sëñ Babacar ngir jëmmi sëñ Touba. nan ñaan yàlla. waaye toog rek di critiquer maa ne bu doon ko critiquer ñu ñaf la doo ko fi critiquer na leer bonne nuit gars ok. auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim mbokk yi tànk maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku si nekk si turam ak santam di rafetlu initiative bi nga xamante ne moom la tànk jël tey ñu war a jàkkaarloog askan bi pour waxtaan ak ñoom si mbir mi nga xamante ne moom la ñuy dund actuellement si réew mi di jëkkee d'abord di fustiger en tout cas man di fustiger li nga xamante ne moom la presse bi di def actuellement parce que presse bi toll woon na foo xamante ne dañu ko daan sagoo di ko bëggee mais bu ñu demee ba nga xamante ne am na ay journalistes yoo xamante ne dañ leen di fay pour que ñuy génne ay wax yoo xamante ne yi teguñu ko fenn loolu rafet man miy wax wax ak yéen si presse bi laa bokk. dem naa si 38 ans donc xam naa lu mu doon donc lu may wax fu ma koy teg fu wóor laa koy teg parce que maa ñoo ma doon nekk rek di guddee bëccëg nañu bàyyi politique benn bi nit ki bu fekkente ne dañu la jël di la fay salaire respecteel ñi nga xamante ne ñoo la engagé di liggéey pour seen journal mais ce n'est pas moment bu la neexee rek nga jóg bu ñu la waxee benn affaire nga réglé ko def ko sa journal ba pare oo sa beneen xaritu beneen presse jox ko ko pour mu def ko yooyu rafetul Abdoulaye Diouf Sarr pour revenir si moom par rapport ak la santé yaakaar naa ne ñun réew bu ñu ko gërëmul waruñu ko xarab parce que pandémie bi yàggal na lool te lu mu yàggal yàggal lépp fa am na faneen fu mu jógee door a ñëw fii te fi lañ daan toog si jàkkaarloo télé bi la nga xamante ne moom lañ daan gis si ay moor ñu di ko wax loolu amagul Sénégal donc ñun nañu gëm yàlla nañu gëm yàlla te xam ni feebar bi nga xamante ne moo fi dugg ce n'est pas une première au Sénégal ce n'est pas première au Sénégal fii feebar bu nekk jaar na fi bii fi peste bi jaaree peste bee gënoon a métti fuuf peste bi nit ñi buñ daan rob yi booy rob yi di dellu si da ngay delluwaat parce que ni nga romb à peine ay huit dix personnes benn jour. mais pourtant xalaatu nit ñi xalaatu mag ñi ñoo ko fi jële booba médecine bi évolué wul ni mu évolué actuellement. et pourtant Sénégal génn na si. donc suñu ngëm nañu koy jiital si lépp loo xamante ne moom la ñu def te di moytu dogu wax ci loolu di soññ nga xamante ne ñoom laa dëkkal ñëpp muy waay tànk. ku si ne na waxtaan ak njabootam ñun ñëpp nañu waxtaan ak suñu njaboot parce que ndimbal na si fekk loxol borom ku waxtaan sa njaboot boo seetloo na sa njaboot ah, ah, nga jël sa njaboot nga bu ñu pikiru sa njaboot bu ñuy dem marché nga vérifier kii dem marché ndax takk na masque ndax def na li nga xamante ne moom la ñu ko sant mu def bu ko deful mu delloo ko si si yoon donc bu ko ñëpp defee yaakaar naa ne ñun ñëpp ñooy liggéey pandémie bi du Diouf Sarr moo ko fiy jëlee xelaatu Diouf Sarr ak techniciens yi mu yor ak ñun sénégalais yi ñun ñëpp ñoo fiy jëlee ñoo fiy jëlee pandémie hmm. mais buñ ko yaakaaree ne moom moom moo moom moom moo andi pandémie ko di andiwu ko fi donc moom moom mënu ko fi jëlee parce que tey jii nañu xam ne si pays boo xamante ne bii développé wul la ñu ne hmm. donc tey infrastructure yi nga xamante ne moom la ñu amoon mu nekkoon fi nañu xam ne infrastructure yooyu la ñu mënoon a am donc loolu ñu mënoon a am tey ba nga xamante ne ñëw nañ fi président Macky Sall ñëw fi feebar bi dellu si fi mun nañ wax ne lépp loo xamante ne nekkoon na fi multiplier nañ ko par 10 ou donc bon ñoom yi dañ leen di gërëm sant leen liggéey bi nga xamante ne ñu ngi koy liggéey mu jëm li nga xamante ne moo jëm suñu wërgu yaram la seule chose bi nga xamante ne moom laay waxaat di ko demander au président Macky Sall mooy il faudrait que ñi nga xamante ne ñoo bokk APR au moins ñoom tamit ñu nekk ay responsable nañu nekk ay responsable yu correct parce que réew mi mënu la dund pandémie ñun ñu nekk si ay problème nekk si ay jaxale ku si nekk di xool sa intérêt propre yooyu ñu ko bàyyi parce que Abdoulaye Diouf Sarr bi mu fi annoncé ba nëgër ni ay problème mu euh, mairie de Dakar si la ku nekk jóg ku nekk jóg di def liggéey def yooyu na ñu ko bàyyi te xam ne ñoom ñooñu ñoo bokk seen parti parti bi bu suuxee ñoom ñëpp ay bokk suuf donc nañu ànd nekk bokk ndey ak bañ ku yàlla di jox mairie Dakar yàlla moo ko xam. Hmm. bés bu yàlla defee ñu xam ne kii la ko yàlla jox ñu ànd ak moom. ñun nag di waay tànk di mbokki Abdoulaye Diouf Sarr ku nekk libre nga Balla Gaye buy ngemb géejawaay day ànd ak waay géejawaay yëpp dem dem hmm. jóg. donc ñu ne suñu mbër buy ngemb day ànd ak yoo Ngor Wakaam lébu ba bari ba bari dem dem dem si géew. Hmm. donc loolu kenn mënu ko bañ. boo demee Casamance la même chose. boo demee fanaan la même chose. donc tey jii bu ñu andil ndax ñu ñoo far fi wala ñi faruñu fële ñun dañ war a jàppale Diouf Sarr parce que Diouf Sarr la ñu am bés bu ñu yàlla joxee keneen ñu boole kaa Diouf Sarr ñu am deux bu ñu yàlla joxee ñeneen ñu boolee ñoo ñu am dix donc ñun loolu mooy li nga xamante ne mooy mission mission euh, li nga xam ne moom laa xalaatoon pour wax ko je vous remercie. merci beaucoup. salaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen nekk sa tur sa di leen baalu àq yéen ñëpp di leen euh, sargal di leen dalal jàmm ah def naa ne man sax li ma war a wax yëpp sama mbokk yi wax nañu ko ku ci mel ni président Pébar jaraaf euh, Al jaraaf Youssou man sax jaraaf Youssou tey vraiment man ni mu waxee sax daf ma jaaxal. jaraaf Youssou man tey sa wax jaaxal na ma torop torop torop torop torop lenn rek moo ma ci xaw a neex lambi golo ji parce que fii. làmbi golo la ku la dóor da ngay fayu li ngeen wax yëpp ci pandémie bi dëgg la rafet na trop feebar la boo xam ne bi suñu borom moo ko fi indi suñu borom moo ko fi mën a jëlee waaye nag day ànd ak ñaan ñu ngi ñaan ñi nga xamante ne nii ñu ngi ci siraatal mustaqim ñu ngay ñaan ñun ñi nga xamante ni ay kook ak i ak i soow la xam man a jaraaf yi sundooy jaraaf aal ba ci saltige Ndofane nii nga xamante ne moo yor sumbaar yi ñun jaraaf nañu duggam néeg ñun xamante nañu am na xam foox ne bañ fa tolloo dañu fatu woon te bañu fatoo am na na feeñ kon nañu fatuwaat jaraaf yuusu jaraaf al saldi gëndoof nañu fatuwaat fatu jot na parce que koy waxal te déggul li ngay wax dangay ngay fatu jàkkaarloog moom boobu ba tey ñu ngi wax ñu ngi artu waaye dafa mel ni dafa am ñoo xamante ni ay gaynde yu déggul jet lañu te gaynde nag bu déggul ak jet da ngay seet bal nga dóor ko ko kon jaraaf Youssou jaraaf Alfatou jot na ma nag ku fi teewgal ministre maire maa ngi oo ñaari fan gi mënuma wuyu parce que xam na fa ma jëm moom li nekk si boppam nekkul suñu bopp ñun ku ñu dóor dañuy fayu moom ndege mën naa muñ ñun mënuñoo muñ bëgg nañu nag jaraaf Youssou dans les plus brefs délais nañu recevoir moom moom moom Abdoulaye Diouf Sarr. nañu wuyuse. ñu wax ka li ñu koy wax ndaxte dafa am loo xamante ne nii loolu tubaab li wax trop c'est trop trop c'est trop yéen ñi nga xamante ne yéen siraatal mustaqim nekk leen waaye ñun Yaraaf Yuusu Yaraaf Aal Saltige Ndoof nañu ubbi xamba yi duggaat ci ubbi ko jot na nañu jàpp bés ubbi xamba yi duggati. ndaxte dafa am ñoo xamante ne ñi ku ci mel ni bëgguma wax sax euh, koo xam ne ki fa bokk si yéen yéen waa presse bi ndaxte yéen da ngeen di ay nit ñoo xamante ne ñi fu nit ku baax àgg rek yéen ko fa àggal waaye dafa ceeb boo gis nag am na tànn tànn yooyu nga xam ne mu ngi seen biir doxe doxal ñu dul dundal dundal seen seen poos ak poos ab jàmbur ñooñu dafa laaj ñu jàkkaarloo ak ñoom jaraaf su Ndoye jaraaf Fall ñun dañu war a weesu foo weñ di dara suñu kaw ñu koy ñu koy upp ñun nii la xam léegi tàpp dóor mu daanu jaraaf yuusu dóor mu daanu lañu xam léegi ki la wax u di ko wax te déggul liwul kaa wax la mu doon daxaa la jàkkaarloog moom man waxi Abdoulaye Diouf Sarr ma ko wax le à aboie la caravane passe ba ñu dalee wax ba tey Macky Sall le grand le président mu ngi koy gën a wóolu di ko gën a feddali kóllëreem ci moom ndaxte gis na liggéey bi muy liggéey te ay mbokkam ñu ko te duñu ko bàyyi mukk nag te negam neex na suñu borom képp ku dal ci kawam wax ji wax ji matatu ko weddi gis bokku ci yéen a ngi fi ñu ngi fi acca bisimilaay ndakaaru ñëpp ko bokk waaye nag am na cosaan cosaan li nag ñun ñii la ko yàlla dénk ci kàttan suñu borom te am naa yaakaar ne masuñoo masuñoo diir mu luppe jaraaf yuusu bu neexee yàlla feeg ñaari fan jaraaf àll saltige ndóof nañu duggam néeg ngeen baal laa ciy wax nañu duggaatam néeg lañ daan def ñu defaat ko ci barke sallallahu alayhi wa sallam jërë ngeen jëf saltige kaay waaw auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum waa tànk asalaamaaleykum ngor wakaam yoof asalaamualeykum waa Sénégal yi ñuy déglu ñu ngi jël sunu ay kaddu di ko toftal ci sunu ay kàddu kilifa yi nga xam ne jël nañ fi tey waxtaan ak àddina waxtaan ak Sénégal ndax waxtaan wi waxtaanu mondial la ma toog fi nag ci kàddu conseil municipal bu Yoff te Abdoulaye juuf saar di maire yoof ñun ñuy conseiller bu municipal bu mairie Yoff macha allah fii ci salle bi conseil municipal yëpp ñu ngi fi toog góor ak jigéen maa ngi leen di nuyu. di ko jiital nuyoo bi ci premier adjoint maire muy Abdou Nar Mbeng di wax ne kaddu yi fi suñu kilifa yi yëkkati mooy ñaari kaddu benn muy la santé la ñuy wax ñaareel bi mooy ki yor santé li ñu wax nag ne santé. moo dàq lépp ci àddina nee nañu wér-gu-yaram moo dàq taar wér-gu-yaram moo dàq ñam bi ngay lekk wér-gu-yaram moo dàq li ngay sol waaye nag dafa am lu xew muy pandémie bi xew ci Sénégal yàlla nattuñu jox ko kenn ki ñi nga xam ne dafa bokk fii ci Yoff di suñu leader di suñu maire muy Abdoulaye Diouf Sarr ñun waa Sénégal ñun waa jigéenu Yoff ñun waa askanu Ngor Wakaam Yoff ñun waa askanu politique dañuy wax ni nañu bàyyi xel bu baax ci ne bu guerre amee lan moo war a nekk taxawaayu population. guerre dafa am ñu ne kan moo jiite guerre bi ñu ne le président Macky Sall yàlla nattu mu dénk santé bi Abdoulaye Diouf Sarr ki mu ko dénk yàlla def mu dajale ak moom pandémie bi mu di ci xeex boobu ak tey ba jëloon ci deuxième ci ci ci Afrique ñu ne troisième vague bi ñëw na. mu am ñoo xam ne c'est des mal intentionnés yoo xam ne dañuy bëgg a jël politique rax ko ci ki nga xam ne li muy liggéey loolu lay def ñooñu nag ñun la ñu amal affaire di wax ak ñoom ñu leen wax ne bu ngeen ñëwee nañu waxtaan ci benn mbir nañu wax ne na nit ñi jël distanciation physique et sociale na nit ñi dem pikiiru yi ndax tey troisième vague bi li ko gën a yëkkati li ñuy wax morgue yi fees na dañuy wax ne personnel de santé bi tey jii am na taxawaay bu ñu am ba sonn nañu loolu population bu manque de vigilance moo ko def ñan ñoo leen ko xañ ñi nga xam ne ñoo leen nax naxsaay ci ñu leen ne bu leen vacciné wu bi ñi nga xam ne ñoo leen naxsaay ni bu mu leen wax leen ne bu leen gëm ne Covid bi am na waaye nañu gëm ne tey kenn ku nekk di sénégalais boo toogee xam nga ne am nga lu sa mbokk wala sa mbokku mbokk mu am Covid bi mu feebar ba tey jii am kon nag Abdoulaye Diouf Sarr li ñu ko war a defal président Macky Sall li ñu ko war a defal solidarité gouvernementale bi war a am mooy ñu xam ne c'est le seul homme actuellement ki est en face de tout kon nag kooku ñun duñu seetaan ñun jigéen ñun askan wi ñun ñu jur njaboot bi ñun ñu bëgg a santé bi dox ñu di ko nërmeel wala ñu ko faagaagal wala ñu di ko sosal wala ñu ko waxal na ko sudul noonu les patrons de presse ñu ngi leen di gërëm parce que am na patron de presse yoo xam ne concentré wu nañu xam nañ ne pandémie bi guerre la ba ñu ngi ci sensibiliser ñu ngi ci wax nu ñu war a àndee am na ñoo xamante ne nii c'est les ennemis de la population ñi nga xam ne dañu for presse par Diogoy fay maa ngi lay woo di la wax ne xam nga sa bopp xam nga li la dajal ak presse je te cite de nom ñu wax ne bàyyil Abdoulaye Diouf Sarr mu liggéey d'autres presse télévision du Sénégal Bougane Gueye ñu ngi lay wax ne demal nga ànd ci réew mi ni muy doxee ku bëgg laaj réew mi bu feebar jotee da ngay bàyyi ba wér doo wax politique da ngay bàyyi ba wér doo wax li nga xam ne loolu ngay wutee sa ay élection locale ñu wax ne Abdoulaye Diouf Sarr vous avez la bénédiction de la population sénégalaise am nga say ñaanu réew mi am nga say ñaanu mbokk am nga say ñaanu xarit am nga sa ñaanu njaboot te nag sëñ Mountakha Mbacké sëñ Mountakha Bassirou Mbacké ñaanal na la sëñ Abdou Aziz ñaanal na la dénkaane la Mame Baye Niass ñi nga xam ne ñoo ko fi représenté ñaanal na la ahlu limaamu laay gii nga xam ne ci nga bokk ñaanal nañu la kon nag li ñuy ñaan mooy sénégalais nañu xam ne heure pandémie du heure yàq du heure sos du heure seet foo mën a toog li ñuy wax nag ci réew mi ne Ndakaaru Njaay ah loolu bés bu jotee ba pandémie jeex ba ñu wér bu boobaa ku nekk na nga ngemb te bu feebar bu boobaa ñu xam ne ku ne xam nga climat président Macky Sall li mu def ci réew mi bari na tey jii plateau médical bi yéeg Abdoulaye Diouf Sarr ci vision président Macky Sall la ko relevé bu ñu demee ba Kaffrine di am tey jii plateau médical bu ñu demee ba Sédhiou di am plateau médical bu ñu demee ba tey jii dalal jàmm toll foo xamante ni nii ku ne bi ngi fay dem Afrique bi tey jii kenn ku ci nekk yaa ngi demandé pour Sénégal mën la accueillir nga mën a faj loolu ci gis-gis bu leer bu Abdoulaye Diouf Sarr la kon nag xam nañu ñu leen mën waaye dañu yaakaar ni utiliser yenn presse yi pour yàq moo koy indi ñun nag taxaw nañu comme un seul homme pour la défendre la vision du président Macky Sall mais aussi défendre ko ak capitaine bi nga xam ne moo jiite guerre bi muy Abdoulaye Diouf Sarr que l'on soit clair ñun jigéenu Yoff pare nañu pour xeex pour taxaw ba fu woo ñu wuy leen parce que nag dëkk jot na te nag dafa jot mu leer ndax kulli nafsin saayihatil mawti kulli man alayha fan li ñu bëgg mooy gëm li ñu bëgg mooy diine li ñu bëgg mooy wér te santé bi la ñu soxla pour Abdoulaye Diouf Sarr continuer ko jiite ko am ci ndam jébbal ko ki nga xam ne moo ko ko dénk muy président Macky Sall après nag ñu waxtaan ci politique bu boobaa ku ne xam te yoof moo mës a jiite commune yi bu leen fàtte 2014 bi ñëpp jaaxle yoof moo jiite ndam li te incha allah yoof dina jiital ndam li asalaamaaleykum wa rahmatulah